bi ci njëkk ñaari ndabi laax ñaari ndabi laax ñu taaj ko ñu taaj ko ndab lu ne ndab lu ne fukki nit fukki nit sukk ci sukk ci ndab lu njëkk li ndab lu njëkk li ña cay lekk ña cay lekk ku ci ne ku ci nekk soo tibbee soo tibbee dugal sa gémmiñ dugal sa gémmiñ li ngay lekk li ngay lekk dafay yàgg dafay yàgg ci sa ci sa gémmiñ ndax ndànk ndax ndànk ngay sàqame ngay sàqame buggoo sax buggoo sax ki nga dendeel ki nga dendeel dégg dégg say bëñ say bëñ bool bu njëkk bi bool bu njëkk bi ku ci nekk ku ci nekk sooy tibb sooy tibb ndànk ngay tibb ndànk ngay tibb bëggoo sax bëggoo sax tibb ñaari yoon tibb ñaari yoon ci kaw ci kaw ki nga dendeel nga dendeel ndax yaa ngi bëgg ndax yaa ngi bëgg ki nga dendeel ki nga dendeel ëppale la ëppale ci laax bi bool bu njëkk bi bool bu njëkk bi ku ci nekk sëy ku ci nekk sëy bi sooy tibb sooy tibb bëggoo bëggoo fi nga tibb fi nga tibb mu def aw yoon mu def aw ba euh, soow soow mi aw ca aw ca ñëw ci yow ñëw ci yow ku nekk ku nekk di tibb ndànk di tibb ndànk muy bool bu bool bu njëkk bi la beneen bool bi nag beneen bool bi nag ña fa toog toog ku ci nekk ku ci nekk soo tibbee soo tibbee soo dugalee sa gémmiñ soo dugalee sa gémmiñ doo xaar doo xaar yaa ngay warax yaa ngay warax ndax bëggoo ndax bëggoo ki nga dendeel ki nga dendeel ëppale la ëppale la ci laax ci laax bi ñaareelu bool bi ñaareelu bool bi soo tibbee itam soo tibbee itam tuuti rek ñu ñu rek dégg soo tibbee itam soo yaa ngi def pexe yaa ngi def pexe pour ut yoon wo xam ne pour ut yoon woo xam ni fala soow mi jaar fala mi jaar ci yow ñëw ci yaw ma leen di laaj ñaari ndab yooyu. ñaari ndab yooyu. ban ndab moo ci njëkk a jeex. ban ndab moo ci njëkk a jeex. ñaari ndab yooyu. ñaari ndab yooyu. ci ña fa sukk. ci ña fa sukk. ban ndab. ban ndab la ña fa sukk. la ña fa sukk. ki gën a xam. ki gën a xam. neexaayu. neexaayu. laax bi. ñii gën a xam. ñii gën a xam. neexaayu laax bi. neexaayu laax bi. xanaa du mooy. xanaa du ñi sukk ci. ñi sukk ci ndap lu njëkk li lu njëkk li ndax dañuy jël seen temps ndax dañu jël seen temps di savourer di savourer neexaayu laax neexaayu laax ñaareelu bool bi waaye ñaareelu bool bi mën a xam li mën a xam neexaayu neexaayu laax bi laax bi ndax dañuy njëkkante ndax dañuy njëkkante am déet am déet bool bi njëkk jeex bool bi njëkk a jeex mooy ñaareelu bool bi mooy ñaareelu bool bi li wax mooy sëriñ bi ne li ma bëgg a wax mooy adduna bi adduna bi bëri na koo xam ne bëri na koo xam ne talul sabuure sabuure dundu gi dundu gi ndax yàkkamti ndax yàkkamti laay alasaan ndax ëppalante ndax ëppalante bëggoo sa morom ëppale la bëggoo sa morom ëppale la dix mille francs dix mille francs yi nga gañe tey yi nga gañe tey amoo temps wu sax. amoo temps wu sax. lekk ko lekk ko ndax junni. ndax junni yi bàyyi ba daa te yaa ngi ak dix mille. te yaa ngi ak dix mille. rawante. rawante. suufante. suufante. yàqante. yàqante. ba tax na. ba tax na doo am temps wu. doo am temps benn seconde. benn seconde. boo ci àdduna. ci àdduna mbokk yi. mbokk yi sang sang bi Seydina Limaamu. Seydina Limaamu. nee na. doon seet. suñu doon seet ki gën a gëm yàlla ki gën a gëm yàlla ci yéen ci yéen mooy ki nga xam ni mooy ki nga xam ni li mu bëggal boppam li mu bëggal boppam la bëggal moroomam la bëggal moroomam ngeen di dégg ni ngeen di dégg ni ñuy jëfe ñuy jëfe jàngale jàngale sang bi sang bi mooy ñi nga xam ni mooy ñi nga xam ni ñu nga ca bool bu njëkk ba ñu nga ca bool bu njëkk ba mën naa jàll